alhamdulillahi rabbil alamin ala afdari xalqillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabati alkiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din uxayikum في تحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم أجمل الترحيب في هذه البقعة المباركة من أرض السنغال madinatu Cambérène almahrusati bi iznillah bismi alxalifat al am Seyd Mouhamad al Mokhtar ibnu Seydina Mandione ñu ngi leen di nuyu ci mbaaxum yàlla ak màggaayam jëkke ci nuyu bi nag fa tabarakallahu sëñ Mouhamadul Amin ànd ak fa tabarakallahu maam libaas oustaz maam libaas ànd ak fa tabaarakallahu al imaamul akbar di sëñ mohamadul sëñ noo maam Baabukar ñoom ñépp ci turu xalif bi ànd ak it um sama baay raan di bay Seydi Thiaw ñu àndak ak nag njaboot gépp gépp nag loolu nag dafay am lu muy symboliser fii yiw rek moo fi ne lu baax rek moo fi ne yàlla na ko yàlla gën a saxal a ah, ñëwit fekk kilifa yu baax su sëriñ Maodo Cissé mële toogee fii Sëriñ Maodo Cissé bu fi toogee na leen wóor ni këri diine yi toog nañ su ma taxawee fii na leen wóor ni li Sénégal am ci këri diine yépp taxaw nañu fi loolu laa bëgg mu leer ci boppu ñu bari te ci kanam ah daañu xam li may wax mooy lan sant nag bu baax nuyu fa tabaarakallaahu kilifa yi fi rot tàmbalee ci imaam libaas di imaam raati bu dëkk bi jaar ci moom di nuyu aima yi ci gox bépp borom bis bi le premier magistrat bu Cambérène di bàyyi dun beng di meeru dëkk bi ànd ak kilifa yi fi ne alaaji Isaa alaaji Dudu Aan te Assane bii nga xamante ni moo jiite délégué de quartier yi ak le comité local bi nga xamante ni ñoo taxawee ñoom ñëpp dajaloo teeru kilifa yu baax yi waaye jàkkaarlook balaa ñuy tàmbale et la communauté la ca jëkk mooy représentant yi toogal xalifa bi ci gox-goxaan yi ak borom dëkk yëpp waaye tëje ci gërëm et la communauté laa yeen nag ñoom ñëpp sant leen gërëm leen eh santit alaaji jaaju yiite ko ànd ci Moustapha dem ak ñoom fédération des daïra alaaji njiin aada Alaaji Pël ñoom idris Idrissa jàppale leen lool la nag ñooñu nag ñoo constituer le comité d'organisation li fi baax seen xalaat kon yàlla na leen yàlla fay ci biir defe naa imaam li baax ñii kat seen maamat ba bàyyi lay ni diw lu Jibril waxoon ca nàngam daka dale ca taf ci oustaz Sakhir Gaye kon bu libaas Gaye toogee fële tey sëriñ Ablaye daan taxaw yooru yooru jàmmalaay bari na lu mu daan wax te xale yi liggéey liggéey bu rëy ci xam-xam dañu leen di félicité jaar ci moom it commission yépp ci bi ñu nuyu leen yàlla na leen yàlla fay ah gan ka jëkk ngi koy dalal jaar ci moom moo fi toog sant bu baax a baax moom président Macky fii lañ doon taxaw ni ko jërëjëf ay at liñ ko doon jërëf jëfal yépp moom war na noo am ngor taxaw fi ko ni woon jërëjëf ñu delloo ko ni ko jërëjëf moom président Macky Sall ñaareel bi kenn ku am solo mooy Barthélemy Dias sunu dëkk Dakar mais ku taxaw tey gor war nga ni ko jëf fii nuyu kilifa yi nga xamante moo xam sunuy muy maire di fi ñëw maam mëgëy ah njaboot gi a ah, Aliou Ndoye di meeru Kayar bu ñu xoolee ci wàllu sécurité nos forces de défense de sécurité ginnaaw yàlla na kon leen jaam yàlla yi leen wër dëpp leen di am cant bu rëy rëy ñu toog buñ leen waxee euh, madame Sandrine euh, euh, di waxuma la dunu ganu Seydina waaye mën naa ni Seydina Isa na toog fii nu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax e diaspora ñuy am ci ñoom mbégte ci ay taxawaay yu bare bare bare di leen ñaanal yàlla jàppale leen santit noo fi ñëwoon fii ay at yàlla talloonu ko kon yàlla na nu yàlla gunge jàkkaarloog nag la presse bi nga xamante ni dans sa diversité médias d'État comme médias privés presse en ligne presse écrite presse ceci ñii bu xew-xew bu mel ni ñi seen loxo dugg na ci lool yàlla leen yàlla jàppale bu baax a baax te leen rafetlu nañu seen liggéey non seulement fii mais ci réew mépp yàlla leen yàlla jàppale bi am solo bu ngeen nu déggee tem lanu yor mu ngi bëgg a yàgg na ku ñëw ba fii war ngaa wax le pourquoi tem bu mel noonu ñëw walla tin ñëw nag ci waxtu wu mel nii nun masunoo liggéeyal ay waxtu yàlla rek lañuy liggéeyal ndax waxtu yàlla rekk fa ne lay ñëw ëllëg ak ginnaaw ëllëg xamuñu ko waaye sañ na ni yàlla lu ñëw yàlla nay njariñu doomu aadama yépp safaan baat yàlla nañu ko yàlla daqal ku ne sañ mais yàlla suturaal nu keroog ba mu ñu defee ay nit lanu nangu suñu nite waaye am suñuy limit bu sooboon yàlla nit du ñëw ci kaw suuf ba koy jiite kon day yónni malaaka ya fa ñu ne ñu fay woote mais yonent yépp ci kaw suuf la leen wàcce kon nit ki bu xoolee di teen ci kaw te du xool te du xool ci suuf bu yàggee mu àgg suuf